asalaamaaleykum wa rahmatullah barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall barkeb Serigne Cheikh Fall borom Mbawar ñoo ngi delluwaat di siyaaraat bu baax mbokki taalibe yi euh, di leen nuyu te di leen jox seen wàccuwaay ñoo ngi fi nag tey ci bisub Seydina Alioune Fall borom Mbawar Seydina Alioune Fall borom Mbawar di doomi maam Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Fat Sayer Diop tey moo waral bis bii nga xamante ni moo fi indi mbokki taalibe yi ñu gis muy bis boo xamante ni bisub ñaanal ñaan la. ñaan goo xamante ni ak fàttaliku jëmee ko ci jëmm ju baax jooju nga xamante ni mooy Seydina Alioune Fall borom Mbawar waaw loolu nag moom mooy moo waral bis bi tey nag fi ñu taxaw nii mooy li ñu gis suñu ginnaaw nii mooy daara étudiant Mbawar nga xamante ni benn cellule ci biir kër gi di liggéeyal Serigne Cheikh Fall borom Mbawar di liggéeyal Seydina Alioune borom Mbawar waaw ñoom nag ñoo waral def suñu exposé nii ci ginnaaw mu exposé boo xamante ni dañ ci euh, jàllale maanaam. jaar-jaaru Seydina Aliou Fall borom Mbawar kon loolu nag moom la ñuy ñëw découvrir léegi léegi léegi ci ci ginnaaw waaye gannaaw loolu nag ñuy wax tuuti ci daara bi nga xamante ne mooy daara étudiant Mbawar nga xamante ni daara la boo xamante ni wax dëgg yàlla ñoo ngi bay seen waat ci biir kër gi. ndax euh, yu ci mel ni exposition yi nga xamante ni mooy leeral euh, liggéeyu Seydina Aliou Fall borom Mbawar ñu koy jaar def ko ay transcription écrit def ci ay exposition yoo xamante ni yu am solo yoo xam ne danañ ko xool léegi léegi ak bisug ñaan la bisug fàttaliku jëmale ko ci doomu Cheikh Ibrahima Fall boobee nga xam ni moo moo doon jàmbaar ju amul at. waaw kon nag ñu yamale foofu kàddu yi bu jógee ci biir ñu gën a leeral kan mooy Seydina Aliou borom Mbawar ak kan mooy maanaam njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi. waaw comme ni ñu waxee rek ñoo ngi waat fii euh, ci biir exposition bi nga xamante ni moom la cellule daara étudiant Mbawar. maanaam taxawal ci liggéey bi ci ak tënk rek ci ki nga xamante ni mooy jàmbaar ji di Seydina Alioune Fall Borom Mbaor comme ni nga xamante ni ñoom noonu lañ ko noonu lañ ko yaatalee ci bind moo ngi gën a àdduna ca Tesner Gandiol en 1986 ci la gën a àdduna ca Tesner Gandiol ñaari ñoo ko mel ni mooy ñu baax ñu gore muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine di Abou Rijaalullaahi ak ki ñuy wax Soxna Faat Diop Sayer ñoom ñoo ko meññi mi ngi gagné nga àdduna fi ñuy wax Tesner Gandiol fa la gane àddina en 1896 ci la gane àddina waaw jaar na nag daara am na ñu ko jàngal ku ci mel ne son Amsatu Jaxate ak ñu mel ni ñoom waaye moom it bokk na ci liggéey yi nga xamante ni ci ak tënk rek liggéey yi ko yi gën a siiw yi nga gën a xamee bokk na ci aju ajuma yi nga xam ni keroog bi sëñ Fallou di tuddee maanaam euh, soroor bi maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ne ca la tàmbali ci ajuma yi di ko di ko ngénte saa su ne di ko def ba keroog bu mu fi dog nee nañ sax bis bu mu fiy jógee di gaaw da koo togg ci àjjuma gi ba noppi ca gaaw gi la doo ko làq kon nag maanaam euh, ci ak tënk rek ci Seydina Alioune Fall borom Mbaor nga xamante ni maanaam jàmbaaru faq dën boo xamante ni bu bu bu xam ne war nañ ci defal ay gëstu ci bu baax a baax waaw bokk na ci comme niñ ko waxee ci Seydina Alioune Fall borom Mbaor ci njabootam ñu góor ñi bokk na ci ci mel ni sëñ Cheikh borom Mbaor mi nga xam ne mooy xalifaam di ko doolee ñaanal saa borom yàggal ko lool te ànd ak wér ak ku ci mel ni Chérif Assane Fall moom it ñoo ngi ñaan suñu borom yokk ay leer dolli ay ngërëmam ak ku ci mel ni sëñ Fallou Fall mi nga xamante ni moom it euh, leeru seen Aliou Fall borom mboor la mën nañu ci ñi nga xamante ni ñooy ay góor ñoom ñett ñoo ci ay leeram waa di ay jàmbaar ñoo xamante ni wax dëgg ku ci mel ni sëñ Cheikh borom mboor ñu ngi ko loolu ñaanal mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ndax mooy xalifaam te wax dëgg yàlla jàmbaar la ci ci ci ci liggéey bi. waa ku ci mel nag fii ci suuf it ñi ngi ñëw di établir ñi nga xamante ni ñoo nekkoon xalif yi nga xamante ni ñooy xalif maam Cheikh Ibrahima Fall ku ci mel ni sëñ Moussa Fall nga xam ni mooy mooy mooy mooy xalifam gu njëkk ku ci mel ni sëñ Mortala Fall mi nga xam ni moom it mooy deuxième xalifaam ku ci mel ni sëñ Ablaye Fall Ndar moom it mi nga xam te ne mooy troisième xalifaam ak ku ci mel ni Sirif Assane Sirif Assane Fall sëñ Abdou Sakour Fall sëñ Modou Aminta Fall ak sëñ Cheikh Jëmu Fall ak di ñaanal ki nga xam ne mooy xalif bu bees bi nga xamante ni moo ëmb maanaam mboolem Mbaye Fall mboolem waa kër Cheikh Ibrahima Fall mooy sëñ am Moussa mu sëñ Modou Mende ñu ngi koy doole ñaanal saa borom ko lool te mu ànd ak wér. jërëjëf. ba tey tamit ci exposition bi nga xamante ni moom la daar euh, étudiant Mbawar yi def bokk na ci ci maanaam xamle kan mooy Serigne Cheikh Fall borom Mbawar mi nga xam ni mooy premier xalif dañ ko bindee bu euh, Signaliou Fall borom Mbawar te ma ngi ko doonee ci 1978 ba tey te danga koy doole ñaanal mu yàgg fi lool lool lool te am te mu ànd ak wér barke maam Cheikh Ibrahima Fall moom ci ñu koy waxee moomit it de son vrai nom Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tuddee di doom it di doom ci sëñ Aliou Fall borom Mbawar ak soxna Amsatou Dieng mi nga xamante ni moom it benn mooy doom bu jigéen bu soxna Maxtaar Penda Dieng moom tamit mi ngi judd mi ngi gane àdduna en 1944 ca Njaareem ca la gane àdduna moom it maanaam ci lu gaaw ci lu gàtt maanaam mokkal la ci alxuraan ak maanaam li nga xam ne mooy jàngale jàngale téere yi téere téere téere téere xam-xam yi maanaam au cours de ces derniers il passait par plusieurs daara jaar na ci ay daar yu bëri yoo xamante ni mën nañ ci wax ku ci mel ni sëñ Moustapha Sy bu sëñ Malick Bassine Sy ak ku ci mel ni sëñ Mouhamadou Dem ak ñeneen yi nga xamante ne jaar ci ñoom ngir ci wàllu ak njàng ba tey ñoom it ci li nga xamante ni bu ñu ko résumé ci sëñ Cheikh borom Mbawar bokk na ci ay xikam yoo xamante dañ ko jël nga xam ne ay waxu borom Mbawar la dañ ko jëlaat transcrire ko ngir maanaam jaamu yàlla yi tamit gën cee mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a jàngaat bu baax a baax a baax boo xoolee lu ci mel ni ñoom nee nañu fii ci xikamu borom Mbawar maanaam borom Mbawar Fall nee na aw yoon xamul tànk bu rëy ak bu tuuti bi rëy te doxul bi tuuti tey dox moo ko ko gënal nga xamante ne loolu it maanaam ak jàngale gu rëy goo xamante ne moo nañ ci toog rek maanaam ci ci ci bis waxtaanee ci maanaam baat bi nga xamante ni ni nga ko tënkee noonu la bëree njëriñ lu ci mel ni moom nag moom lañ dajale ci xikam bi nga xamante ne bëri na yaatu na lool ci ci ci ci ci maanaam euh, ci ci contexte bi nga xamante ni ci lañ ko indee ku ci ñëw découvrir ko wala ku bëgg ci magazine yi ndax li ñu wax yëpp mi ngi ci magasin yi bu jaaree ci cellule bi rek incha allah rabbi dinañ ko mën a jaatal ci liggéey bi nga xamante ne waa daara ñu ngi koy liggéeyal bu baax a baax a ngi ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci société comme li ñu doon wax sànq rek ci Seydina Alioune Fall borom nga xamante ni moo initié woon li ñuy wax añu ajuma yi nga xam ni keroog bi sëñ Fallou tuddee Cheikh Ibrahima Fall euh, soror bi ci lañ commencé ba ajuma ju ne ñu ngénte ko moo waral nag liggéey boobu mooy dox ba ñëw ci sëñ Aliou sëñ Cheikh borom Mbor mi nga xam ni mooy xalifaam maam doxal liggéey bi ba léegi maam moo tax ñu bindi ko nii noonu bind lay añu ajuma mooy añ yi nga xamante ni dañ ko def ci ajuma yi nga xam te ni moom lañ ñëwaat indiwaat ko ci lu yaatoo yaatoo yaatu yaatu maanaam fa mu jóge nan ko waxee léegi fam ak ci ak tàmbali mooy origine yi maanaam ba ci évolution yi maanaam nga xam te ni fi mu toll ak bi nga xamante ni sëñ sëñ Cheikh Fall borom ko ci ma xam te ni soppi maanaam liggéeyin bi teg ko ci ñun anam yoo xam ni gënati naa dina doon ak tawféex waaw buñ jóge waatee ci loolu tamit maanaam ñi ngi def ndax daara bi day am nu muy doxee noo xamante ni ku ci mel ni sëñ Lamp mii nga xamante ni ci daara bi la bokk kon wax dëgg yàlla jàmbaar ci liggéey bi sunu borom nag euh, def mu génn àdduna moom it di ko doolee ñaanal sunu borom defal ko indi ko defal ko yërmande yu yaatoo yaatoo yaat te dolli ko ngërëm te fu mu ne. di woon jàmbaar da ci mel ni ñoom it ku ci mel ni euh, ay jëmm yoo xam dañu ànd di liggéey ak ñoom ñu génn àdduna ñu leen di fàttalil di ko fàttalil mbokki taalibe yi nga xam te ñu ngi ñëw di xool ci exposition bi. kon nag ñu ngi wax mbokki taalibe noonu doolee ñaanal suñu làmp Mbawar mi nga xam ni ak taalibe la ci biir kër sëñ bi waaye bokkoon ci biir liggéey bi doon ci jàmbaar loolu doole ko ñaanal bu baax a baax te ànd a wér kon nag ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax ci maanaam ànd gi ñu ànd ak yéen li nga xamante ni mooy wane exposition bi nga xamante ni moom la waa daara étudiant Mbawar def demale ko ci euh, ñaan gi nga xam ne mooy ñaanu Sëñ Aliou Fall borom Mbawar kon nag maanaam niñ ko fi waxee lépp rek maanaam jëm ci liggéey bi. di ñaan saa borom gën ñoo dolli ak tawféex ba nga xam te ni lañ ko bëgg a yaatale danañ ko yaatalee waaye ci ak tënk rek liñ fi wax a wax rek ak tënk la gu ndaw goo xamante ni ku ci bëgg loo xamante ni lu gën a yaatu def nañ ko ci ay magazine yoo xamante ni magazine yi euh, mi ngi fi disponible na maam ku jege rek ci kenn ci cellule euh, daara étudiant Mbawar yi maam danañ ko mën a wecc ci maanaam magazine yooyu nga xam te ni ñu ngi koy jaay jëmee ko ci gën a xam kan mooy Seydina Alioune Fall borom Mbor gën a xam kan ñan ñooy ay leeru Seydina Alioune Fall borom Mbor comme niñ ko yaatalee léegi léegi léegi waaye nag liggéey bi ak doxalin gi nga xam te ni ñu ngi koy doxee ci biir kër gi kon nag ñu ngi yamale foofu suñu kat di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yow la ñaanal Serigne Cheikh Fall borom Mbor mu yàgg fi loolu te ànd ak ak mbooleem mbokki euh, dongo yi ñu ngi tubaat baax jëf